Ce matin, euh, nous euh, pour une activité qui concerne Use euh, Connect Sénégal. Use Connect Sénégal, ce qu'il faut savoir, Use Connect d'abord, c'est une initiative panafricaine. Euh, le Sénégal a, adhéré, a adhéré à cette initiative-là en 2018 et euh, à partir de 2019, Madame le ministre Néné Fatoumata Tall nous a instruit véritablement de travailler avec le programme des Nations Unies pour le développement, pour pouvoir euh, mettre en place euh, Youth Connect euh, Sénégal. Maintenant, avec la pandémie de Covid-19, les choses étaient au ralenti. Mais euh, donc, nous avons eu un contact extrêmement important à travers le cabinet PCA Euh, qui nous a proposé euh, son expertise, ses services, pour qu'on puisse commencer à travailler sur une maquette du PSE Priorité Jeunesse avec euh, toutes les solutions d'insertion socio-économique des jeunes que, qui ont été pré ici. Donc vous avez pu voir la pertinence de ces solutions pour, euh, par rapport à l'insertion socio-économique euh, des jeunes. Euh, donc euh, c'est un travail extrêmement important que le ministère a eu à faire avec le cabinet PCA. Donc en termes de contenu du, euh, de, de Use Connect euh, Sénégal. Mais euh, ce qu'il faut dire, c'est que le ministère se euh, réjouit véritablement de la disponibilité euh, du programme des Nations Unies pour le développement, mais aussi de l'ensemble des, euh, des, des, agences du système des Nations Unies sont disposées à euh, travailler avec le ministère de la Jeunesse en suivant un processus euh, véritablement inclusif. Euh, euh, euh, dans lequel euh, le Conseil national de la jeunesse va occuper la place qui lui euh, revient pour qu'on puisse travailler en deux mois, donc à mettre en forme Euh, le PSE euh, le, donc le euh, une plateforme Youth Connect Sénégal qui puisse constituer en tout cas un outil assez important assez pertinent pour la mise en œuvre du du PSE priorité jeunesse donc c'est un processus qui qui va euh, donc démarrer euh, euh, bientôt avec les jeunes et tous les acteurs Euh, donc euh, qui sont impliqués dans la mise en œuvre du PSE euh, de priorité jeunesse. Maintenant, aujourd'hui, nous, nous sommes là avec des acteurs, avec des, des structures qui sont intéressées euh, par euh, Youth Connect Sénégal et qui sont disposés véritablement à travailler avec le ministère de la Jeunesse pour euh, véritablement leur permettre de, de, de, de positionner les services qu'ils offrent, euh, en tout cas aux jeunes, afin que les jeunes puissent euh, avoir accès à ces, euh, à, à, ces offres à partir de, de, de, donc de la plateforme Use Connect Sénégal. Ce qu'il faut dire peut-être euh, enfin, c'est que il y a une relation fonctionnelle entre Use Connect Sénégal et le PS e Priorité Jeunesse. Parce que quand le Sénégal adhérait donc à cette initiative, L'idée était que, étant donné que le PSE Priorité Jeunesse, c'est pour connecter les jeunes avec les opportunités et que Youth Connect aussi, son objectif, c'est de connecter les jeunes avec les opportunités, il était important pour le ministère de la Jeunesse donc de positionner Youth Connect euh, Sénégal comme un instrument privilégié donc de mise en œuvre du PSE euh, Priorité Jeunesse. Donc avec cette activité-là, on peut dire que vraiment nous sommes, euh, nous sommes en orbite pour véritablement suivre un processus à partir d'aujourd'hui un processus euh, vraiment euh, inclusif avec tous les acteurs pour euh, pouvoir aboutir dans deux mois à une plateforme fonctionnelle qu'on pourra lancer euh, donc euh, officiellement avec tous tous les acteurs pour euh, vraiment accompagnement bi nga xam moom la ñu war a apporter le génie donc ñu commencé euh, woon ci liggéey nag avec le programme des Nations Unies pour le développement mais en un moment affaire yi tuuti ndax euh, pan pan pandémie bi euh, donc affaire yi taxawaan tuuti mais ginnaaw bi ci la cabinet PCA ñëw nii dafa bëgg jàppale ministère pour ñu pour ñu taxawal kii plateforme bi ñu nekk ci di liggéey ba tey li ngeen gis nii Euh, mooy euh, résultat wu euh, liggéey boobu nga xam ne cabinet PCA ak ak ministère de la jeunesse donc liggéey nañ ko léegi nag contenu yi nga xam ne ni moom lañ doon présenté nii te ñu gis ni am na acteurs yu bëri yoo xam ni contenu yooyu ñoom pour ñoom am na solo et bëgg nañu liggéey ak ministère de la jeunesse pour ñu ñu gën a am taxawaay ñoom ci PS ci ci Youth Connect bi donc contenu yooyu yëpp dañuy bëgg a tàmbali. avec euh, les acteurs donc euh, les partenaires euh, programme des Nations Unies pour le développement ak yeneen agence du système de Nations Unies ak yeneen même partenaires bi nga xam ne nii taxaw nañu pour jàppale ministère de la jeunesse pour que Youth Connect Sénégal nekk une réalité ñoom ñooñu ñëpp dañuy nar a ànd ak conseil de la jeunesse ak jeunesse su Sénégal yëpp pour ci ñaari weer yi di ñëw vraiment ñu liggéey liggéey bi nga xam ne bi donc dina tax ba Euh, aussitôt bu ñu génnee ci ñaari weer yooyu rek dinañ mën a lancer le euh, en tout cas use kon use connect euh, Sénégal donc dinañ ko mën a lancer use connect Sénégal nag li ko tax a jóg moom moo tax a jóg PSE priorité jeunesse PSE priorité jeunesse c'est pour ñu connecter ndaw ñi ak opportunité fu ñu mënti nekk ci Sénégal ci Afrique use connect Sénégal tamit loolu moom mooy objectif am ba tax na tey mun nañu wax ni euh, Youth Connect Sénégal euh, vraiment le fait que ñu euh, acte buñ ci posé rek on peut mën nañ ko considérer comme acte de mise en œuvre du du du e priorité jeunesse ñu kontaan nag ci taxawaay bi nga xam ne ni acteurs yi am nañu ko partenaires yi am ko pour que processus bi nga xam ne bi ci la ñuy jublu ci ñaari weer yi vraiment mu nekk un projet participatif inclusive ñëpp bokk ci ndaw ñi am ci taxawaay bu dëgër dëgër dëgër ci euh, ci ginnaaw seen président euh, Khadim Diop mi nga xam ne bi moom moo nekk fii pour que vraiment ñu am euh, plateforme boo xam ne bi dina amal njëriñu seen ndawu Sénégal dina leen amal njëriñ bi nga xam ne bi moom lañ ciy xaar